waaw ndeysaan arbitre bi diggante internet ak ki nga xamante Papa internet moo ñu woon ginnaaw moo ngëm moo ngëm bul xonk li waaw Papa Ngane a ngi noonu ñu jàkkaar lool wala da ɗegin maga gum gum iyo lalbe ɓe en dang de ne alul seeseer de hehe mbin jabaro ka de mbin jabaro tala jinde badara internet won na ko ndombo badara internet won na ko ndombo badara internet daan na baba nga wala arbitre lu xew ey eh, way ey eh, babu ngaan soosoox babu ngaan soosoox daan na badara internet ñu xool arbitre lu muy wax A, ah, a, ah, lola vogon Kabungan dandak po